alaikum, suñu mbokk internet ñi safo seen chaîne 221 Tay nak ñi ngi fi ci cité La Linguère de wetu Auchan bi de leader mi ngi Badara Seck man la présentation bi dama koy dégg sama micro rek mu wax kan. Euh, euh, Adama euh, ngi di nuyu di remercier si invitation bi di leen dalal vraiment si si euh, di rafetlu jotaay bi déjà di leen encourager yéen waa Xibaar 221 si euh, initiative yi ngeen di jël si émission bi tamit concept bu am solo bon man maa ngi tudd Alioune Badara sec donc dëkk fii cité la Linguère euh, dëkk fii depuis 2010 donc depuis 2010 ba léegi maa ngi Kër Massar bokkoon si li ñuy wax candidature ou élection municipale yi si à Kër Massar Sud. Euh, am fait un mouvement politique qui xamni dañ ko lancé ay jigen ñu ko ay jeunes ma ak ay responsables du dëkk biir Kër Massar bon au delà de ça ma nekk tamit dans le secteur privé parce que ñun politique bi du suñu liggéey c'est pas notre gagne-pain ma nekk dans le secteur privé dédié dans le domaine des télécommunications est aussi le secrétaire général national du syndicat des travailleurs de saint bi nga xamni moy bi donc euh, si tant que ko mënee présenter loolu la si mëna gum d'accord monsieur Seck euh, gis nañ ne gannaaw euh, politique bi nga xamante ne soobu na si ci nga xamante ne sa candidature marqué woon nga ko si 2021 2022 bii autant pour moi à part loolu gis nañ ne sa métier de politique kese euh, mais naka nga dundee politique gu Kër Massar pour une toute première nga lancé sa candidature. man li may wax mooy ñun dañ ci engagé wu d'abord par conviction non seulement par conviction mais de am tam ay raisons raison ñu parce que euh, soo gisee gox bi nga des choses, un département nous avons une nouvelle commune qui mu nekk Sud nous gis des choses yi nga xam Nous avons la nit ñi di dund ñun euh, ñuy ño xamni dafa am jaar-jaar nous xamni non lañu la moy lan moy Sénégal bi nous avons euh fi euh, nous

tu vois euh, bay si suñu war nak deug neex yalla te mu doon lo xamni it parce que man lo la gëm man pour man la vie ay combat la ak ay sacrifice parce que suma engagé dans le syndicat je ne l'ai pas fait parce que dafa am lu ma si doon xaar mais nit ñi ñoo gis ni amna lo xamni ñun mën nañ ko ci apporter ils sont venus vers nous nous ont demandé de participer à la lutte syndicale Alors tax ñu dugg ci yalla def ñu fal ñu secrétaire général syndicat bi depuis 2016 ñu mën combat yu bari à l'intérieur de Free Sénégal ba tay euh, ak yi ñu am yépp Afri Sénégal dafa jaar si xeexu syndicat bi lutte syndicale moo tax suñ ñëwee fii tam Kër Massar gis jafe-jafe yi am ah, jigéen yi am ay jafe-jafe pour ne serait-ce que euh, mener seen i activité ndaw ñi moom n'en parlons même pas problème bi gën a mag chômage bi am Kër Massar moom lay wax mooy chômage ndaw ñi dafa bëri ñoo xam ne dañu nekk au chômage sa kër ngay toog ku nekk dina la fëgg yor naa sama CV def naa lii def naa lee est-ce que mënoo ma jàppale si xëy am na ñoo xam ne suñu amee des petits problèmes ponctuels est-ce que mënoo ma jàppale si lii ak lee te ñun ñu jaar si nekkoon ay ndaw ñu jàppale ñu ba yàlla may ñu ñu am li ñu am donc dañu war a delloo li nga xam ni mooy euh, ces opportunités là à nos jeunes frères à nos jeunes sœurs donc sooy xool ñun le sens de notre combat c'est ça gis nag tamit ñi nga xam ne moom la ñu dénk suñu gox bi deug neex yalla mu am ay manquement yu bare yo xamni ne am fi parce que suñu wax développement gox suñu wax développement deuk day commencer au niveau local té développement local tàmbaleegul keur Massar bi donc toutes ces raisons mo taxone ñun ñu né duñu tok di sétane tok suñu salon né bon ñun vraiment on peut faire des choses pour keur Massar on a un programme mais on fait pas de la politique non non dañu né ñun dañuy wacc ci langue bi dinañ bay suñu war présenter li nga xam moy suñu programme wa keur Massar après comme je l'ai toujours dit c'est wa keur Massar ñom ñoy tan man dafa am benn message bo xamante dama bëgg yow nga xéxal mako comme que syndicaliste nga nga xeexal ma ko Free parce que man damay jënd sama connexion bu 5000 francs même pas 15 jours mu jeex lool fa ngeen ko teg. <laughs> non xamna ni ngay communiquer mo fort rek yow tamit <laughs> xam nga ni ngay communiquer la. non ku nekk ak ni ngay ni ngay communiquer bon parce que quand même quand même le nombre de minutes yi ñi joxé bon ça va quoi je pense bon bah, bon en fait tu sais des fois euh, bon pour bon déjà pour pour revenir un peu hein, peut-être su un peu dans le domaine des télécommunications parce que l'OLU yàgg naa à intervenir même dans les médias c'est-à-dire la communication elle coûte trop cher au Sénégal Sénégal faut beaucoup si de yi nga amené en termes de coût communication si de qui est élevé le te qualité bi bon bien que amélioré na lu bare dernièrement parce que quand même on a mis des des des des des dizaines de milliards si si pour améliorer qualité bi que ce soit Free que ce soit Orange ou Expresso euh, ba léegi am lu mais coût de la communication moom dëgg neex yàlla dafa élevé trop trop trop moo tax li ñu war def marché bi la preuve on l'a vu hein ak euh, li nga xam ne transfert financier ben benn opérateur bu Wave bi mu ñëwee ba dugg casser les prix les autres ont été obligés de suivre régulateur bi lolu liggéeyam la mom mo euh, fixer les tarifs à la minute avec les opérateurs mais mu war ko def de concert avec les opérateurs mu war ko meuna def aussi de concert avec toutes les parties prenantes yi nga xamni ñom ñoy ñooy ngànk li nga le domaine des télécommunications mais li nga wax la euh, le coût des communications quand même il est assez élevé bon c'est un plaidoyer qu'on a qu'on a qu'on a commencé à porter bon après c'est c'est aux autres de continuer ce combat là. bon un programme nga tegaloon les Massarois du Sud pour. Euh, sa euh, élection ci mairie bi. suñu programme sur trois axes benn bi c'est les jeunes d'abord euh, beneen bi c'est les femmes beneen bi aussi c'est l'amélioration de notre cadre de vie suñu nee les jeunes wax naa ko problème mu chômage dafa endémique à Kermassar. Massar ndaw ñiy liggéey da nga leen di compter sur le bout des doigts Té dëgg neex yàlla du ndaw ñoo xam ne dañu toog yaafus jàng nañu fu ñu war a jàngee mais amuñu opportunité yi. Kër Massar nak li tax mu bëri ay chômeurs Kër Massar mais faut regarder Kër Massar defena yow yaa ma gën xam Kër Massar Kër Massar amul benn liggéey kay fi amul entreprise amul usine d'envergure bo xamni nek na fi bu mëna a capter li nga xamni moy force de travail bi nga xamni mo nek nekk Kër Massar té gox nak pour mu mëna pour mu mëna développer wu il faut que mu am un entrepreneuriat au niveau local il faut que mu am des entreprises locales il faut que mu am des usines il faut que mu am des entreprises yo xamni ne jël ndaw ñi la preuve fi képp ku fi liggéey ñu ci bare dañuy jël suñu auto wala nga jël auto nga dem Dakar nga liggéey nga dem Mbao su fekkee da ngay liggéey si usines yi mais foofu ngay dem di fa liggéey mais c'est une commune au même titre que Kër Massar ni mu commune quelle est la différence ñi ñu dénk commune boobu ils ont été en mesure d'attirer des investisseurs dans leur commune loolu la ñu war a def Kër Massar fii à en l'instar de Auchan bii mu nekk fii moom laay wax c'est le modèle économique nous qu'on avait mis en place le seul problème avec Auchan mooy Auchan moom la jëlal ñu bare su jëlee 50 60 emplois si la Kër Massar li mu soxla des jeunes yoo xam ne mën na la recruter suñuy ndaw par centaine nous c'est le schéma économique qu'on avait mis en place mais weesuwul parce que yàlla def na moom laay wax am na ñoo xam ni teg nañ leen fi euh, te Kër Massar bi nag ñun ñoo bok. bokk ku jàpp ni yow kott mën nga liggéey Kër Massar man loolu l'a mës a wax ñun kott amuñu prétention liggéey Kër Massar bés bu ñu faloon li ñuy njëkk def mooy tàllal suñu loxo waa Kër Massar compétence yaa ngi fi mais li ñu waroon rétablir moy le climat de confiance entre les populations et l'autorité municipale loolu une fois que c'est rétabli yaakaar naa ne liggéey bi dina yomb pour euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk Kër Massar ñu mën a dérouler leur programme jigéen yi dañu nekk dans le mois vraiment des femmes euh, démb on a célébré la journée des femmes loolu ñu leen si ndokkale tamit bu baax a baax euh, je pense que hier moom nous on a fait vraiment le tour d'un waxtaan ak suñuy responsable euh, femmes yi nga elles avaient organisé des événements Tahawai, euh, tax am taxawaay boo xam ne am nañ ko fa si journée parce que c'est la journée des femmes parce que jigéen ñi man li moom musa wax mooy ku leen jàppale ñoom dañuy dem ku leen jàppalewul dañuy dem donc ku yeboo nga ànd ak ñoom jàppale leen pour yow sa bopp nga mun a dem Kër Massar suñ ko bëggee développer il faut mu jaar si loxo elles sont organisées en GIE elles sont organisées en en association mais amuñu jappalé bi pour mën dérouler li nga xamni moy mooy seeni ambition donc ñun li ñu taxawalon moy un programme de financement bo xamni dañ ko defoon pour les femmes euh, durant la campagne électorale mom la leen c'était une phase de test pour qu'on puisse xam au moins euh, ban crédibilité le GIE yoy ñuy wax ni am c'était des sommes quand même euh, symboliques yo xamni dañ leen don defal des prêts moy ñu leen parce que tam dañ la ñaanul nga may leen dañ la wax financer ñu ñu liggéey ñu rembourser donc nous suñu objectif euh, au moins une mutuelle de financement les fonds c'est la mairie qui va les garantir pour qu'au moins nous Nous développer parce que derrière chaque GIE de femme a potentiel il y une petite entreprise chaque GIE de femme il suffit qu'il y ait un projet il suffit qu'il y ait un accompagnement ak formation

mooy améliorer la sécurité sur nous La sécurité non, koy améliorer éclairage public C'est nous gox yi dafa lëndëm soo goudi guddi su lamp ni nit ñi ñoo taal seen buntul seen lamp yi nekk seen buntu kër donc éclairage public ñu war si taxaw jàppale askan bi on maa ngi la koy wax sànq le un projet de parcours sportif qu'on avait le long de la forêt classée parce que nous nekk ce euh, serait ak forêt classée mu forêt classée mu nekk le poumon vert de de tout notre département de toute notre commune et d'exploiter, exploiter mettre en valeur donc l'idée c'était d'avoir un parcours sportif euh, autour de la forêt classée comme ça au moins on ñi am fu donc c'est des infrastructures euh, scolaires aussi moi j'ai fait le tour des écoles mais vraiment l'école elle est laissée en rade l'école, école yi top de kenn toppatoo ko loolu tam c' est un appel qu'on lance aux autorités yi nga xam ne ñoom la ñu fal ñu def ko euh, un axe prioritaire si li nga xam ne mooy seen liggéey parce que si yooyu itam lañ leen di lañ leen di lañ leen di évaluer l' école à Kër Massar se porte extrêmement mal da ngay dugg si école élémentaire boo xam ni man moom lay wax double flux man xaw ma kañ laa gëj a dégg loolu da ngay dugg da ngay dugg si biir école groupe Mame Dior benn bi ngi nii rek à côté ben groupe day tok ci biti groupe bi tok di bind pourquoi parce que amuñu ay table banc yu doy quand tu as une classe de 50 personnes tu as peut-être vingt cinq table banc vingt cinq yi ñooy toog di bind yenen vingt cinq yi toog si biti su paré ñu génn ñeneen ñi dugg on est en 2022 on est au Sénégal on est à Dakar loolu c'est inacceptable donc dafa am yo xamni c'est un minimum bo xamni war nañ ko gëstu école yi mën leen jappalé parce que nak si on veut avoir une jeunesse d'excellence une école d'excellence à si Massar si le temps que lañ a commencé lycée Kermassar, Massar encore souffre de tous les maux on y a été Faux tamit un effectif pléthorique amul assez de salles de classe amul salle machine amul salle informatique su fait ni ñun suñuy ndaw dañu ñi nga compétir avec les meilleurs du monde si on ne les met pas dans les conditions mënul pas. donc les chantiers ils sont là ils sont énormes mais li qui laaj là, la par parloo bi ak wax bi la ñu war man je wax la campagne électorale est les dernières nous fi mu nek ni ci liguey lañu wara war nit ñi mais nak liguey bobu ci ginnaaw ñu teg ko si intégrité ñu teg ko transparence ñu teg ko honnêteté parce que tant que lolu amul euh, ku ci nek da ngay servir ses intérêts personnels à la fin de la journée kenn du jàppale kenn. bu ñu ci lolu foron forna ci si wewu béy que ni euh, da ngaa nekkoon ci yewi mais après da nga genn nga demal sa bop non en fait ce qui s'est passé à ak à Askan euh, lors des investitures là dañu déjà fait jafé ak nit ñi doon tanné candidat bi au niveau de Yewwi parce que ñun suñu mouvement la ñu yor ñeu duggu biir Yewwi Askan Wi pour une raison très simple nous on est ancré dans l'opposition té dañ ko gëm donc biñu ñëwé duggu dafa am ni ñu doon tanné candidat bi ñun li ñu gëm moy ni ñi tanné candidat dañ ko a ci ay critères objectifs mais suñu ñëwé ñu ni ñu euh ni ñi tanné candidat moy dañuy xol ces résultats élection en 2014 en 2017 législative 2017 et présidentielle 2019 te man autour de la salle amul ben candidat bo xamni dem na si jongante yoyu ba am ci résultat à part que parti wam dem na si jongante yoyu amna résultat au parti bi la nga ne yow ya ko wara a arroger sa bop yow ya ko mom pour man lolu teguñu ko fenn te ñun nak duñu dox ci ay tiaxan motax biñu gisé ñu dañ leen ñun liñu xalat moy liñu wara def moy les critères de de sélection dañ ko wara a ci ay critères yu objectif mooy lan. Mon profilu candidat bi moy lan moy programme candidat bi lan la moy lan moy ban ancrage le ki ni ñu bëgg candidat la am biir Kër Massar Sud moy lan nax mom des moyens même pour mener une campagne électorale donc au moins mu nek ay critères yo xamni c'est objectif ce profil ce ancrage etc. bon notre voix était minoritaire fu ñu sommes nak minoritaire xamni fi ça ne peut pas prospérer mais dañuy demal suñu bop si les def euh, vraiment waxtaan ak une coalition bu ñuy coalition gox yu mu nekk des jeunes yoo xam ni de manière très transparente et de manière très ouverte ils nous ont accueillis on a discuté avec eux on a fait une coalition ànd ak ñoom liggéey biir def suñu campagne et on l'a fait non non absolument pas au contraire si c'était à refaire on aurait fait la même chose parce que ñun li ñuy def si politique dañ koy def par conviction defuñu ko juste parce que on veut se ranger dans les rangs non non defuñu ko juste parce que dañu bëgg un positionnement personnel parce que ça aurait été plus facile nga ne bàyyil ma toog biir Yewwi Askan Wi au moins je vais être conseiller municipal mais man lolu taxu mo na jog te ñima andal lo taxu len wonu jog liñu bëggoon dañu am un programme qui est très clair bo xamni mo moo Kër pour wa Kër Massar il faut que ñu exposer ko wa Kër Massar Wa Kër Massar nak ñoy tan té tan luñu tan rek gëm na ni ah mom lañuy assumer té moy li gën ci ñun man gëm na ni tay li yalla def tay à Kër Massar Sud moy pour le moment fi ñu toll moy li gën pour Kër Massar ñii mu tànn teg leen fi man gëm naa ni mooy ñi gën pour Kër Massar fii ñu toll liggéey nag moo leen di xaar à l'heure du bilan ben on sera là pour évaluer. mais pare nga aussi euh, pour ànd ak ñoom liggéey. non non absolument man képp koo xam ni jóg nga pour liggéey Kër Massar nga teg ko nag man condition bu leer rek lay teg amul leneen lu ñu lay laaj lu dul li ñuy def nañ ko def ci intégrité alalu askan bi la askan bee ko moom dañ ko def ci transparence lu ñuy def nañ ko def ci li nga xam ne mooy honnêteté suñ tegee lépp ci yoon ñun dañuy ànd ak yow liggéey mais loo xam ni leerul moom wala ñuy teg loo xam ni dafa waroo ak li nga xam ne mooy njëriñu askan bi euh, loolu dooñu ci fekk. ñu ngi ci 2022 bientôt les élections présidentielles tey jii nii est-ce que tamit Yewwi bu bëggoon coalition Yewwi bu pare woon pour dem les présidentielles est-ce que pare nga pour yàgg sa parti ngeen ànd ak ñoom. comme je l'ai dit nous sommes profondément ancrés dans l'opposition dañu bokk ci opposition bi pour une raison très précise euh, je pense que le président Macky Sall a fait deux mandats ñu ci deuxième mandat a euh, ñaari mandat droit. Si trois suñu en 2024 il va falloir qu'il passe la main te lolo, il faut que nous préparer donc nous, comme je l'ai dit l'élection locale ça se gère au niveau local waa Kër Massar ñoo doon tànn ki nga xam ni maire euh, au niveau de Yewwi mu am au niveau de Kermassar, sud surtout donc lolu mi ngi suñu li nga législative yi li nga on va voir comment on va y travailler ensemble man awma ci ben xarma ñu mouvement. monsieur sec Aline Badara l'émission tire à sa fin lan dernière mot message les vraiment féliciter euh, toutes les femmes euh, notamment les femmes de Kermassar, pour. Euh, euh, journée exceptionnelle bi nga neex hier euh, nous on l'a très bien vécu parce que c'est une responsabilité on nous a invité euh, si c'est i manifestation yi nga xam une moom la ñu doon def dem nañ fa sargal leen te gis nañ ni vraiment jigéen yi moom fi ñu fa lañ nekk ba donc di leen féliciter bu baax di leen wax fii ñu la en tout cas nous le partenariat qu'on avait établi avec les femmes de Keur avec les jeunes de Keur Massar partenariat il est toujours là et on va le continuer

jot bu ma mënti am nag boo xam ne mën naa ko euh, jagleel li nga xam ne mooy politique bi mu jagleel ko li nga xam ne mooy euh, action de développement yi pour Kër Massar kooku ñu ngi koy continuer la preuve ñu ngi nii si révision électorale yi jëm si législative yi suñu mouvement mi ngi def liggéey bi si suuf coow li barewul mais ñu ngi koy liggéey de telle sorte que dinañ mën a participer si élection yi si anam yi nga xam ne moom la coalition bi di décider ñu ngi leen di encourager di leen wax ni ah ñun moom dañu gëm les chaînes yi nga xam ne c'est des chaînes locales parce que lépp loo xam ne moo xew si gox bi

que ni ngi ci mois de mars les femmes mention spéciale kenn du yéen ay bu jigéen amul won <laughs> ñu leen dig daje ci benen émission fenen ak kenen à révéler avec la grande royale sur Hubert 221 merci.